père maa ngi lay nuyu. maa lay fay. ñu jëm ci combat am solo suba diggante Sa Thiès ak Reug Reug ban jàngat ngay def ci combat bi. waaw dafa doon combat boobu combat neex la ñoo tolloo te bëre day neex. ñoom ñaar ci biir bëre nga jàpp ne kan moo kan moo dàq bëre. ñoom ñaar mën nañu bëre lam moom il faut kenn juum rek kenn daan. il faut kenn juum kenn. waaw. Reug Reug dane ko 10 combat ma daan 10 jël yu bokul est ce que japp nga ne lool wa lool xam nga lool lool ki wu mbeur la rek ki wu mbeur mbeur moy mbeur mbeur moy wax lool rek mbeur mo xamal rek lox sama micro nek lay wax lu affaire lamb la rek day tax mu neex rek day tax mu neex Sadies tamit ñom ñaar confiance bi ñu indi nga yaakaar ne kenn du ci juk def erreur sa morom daal ba lamb il faut erreur am erreur amul jël lu am faut erreur am <laughs> erreur amul jël lu am mais nga japp ne ñom ñaar yakamti wuñu waa ñoom de yàq xam ne ku nekk yàq at bi suufle nga wane sa bopp waa yal na yàlla ma ñu fekkee ko tal ko ñu commencé bismillahi rahmaani rahim mu jeex alhamdulilahi alamina kenn ci bañ ci gaañu ñëpp ku yàlla may ndam nit ñibbi ñu bañ am violence bañ am dara nga xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay lamboleem boole rek waaw. côté xeex bi kan nga jàpp ne moom la gën a aar. waaw côté xeex bi ñoom ñaareel du ne xeexkat ñoo ku nekk da da ngay dóor rek wuti loolu la voilà. mais ma gis Sa lu ci bëri xeexam day mel ni kuy laaw. waaw moom na lay def moom day door bu bëre. est que xeex boobu wër na ci kuy bëreeg rek rek. waaye nit ko am na li mun moom boo ko bàyyee rek la. mu continué na mu daan def. waaw mooy may yoon. boo bi mu yor ñu ci bëri dañ naan poids bi poids bi nga jàpp ne lool lan moo waral mu jël poids. waaw moom moom looloo ko arrangé il faut mu diis moom looloo ko arrangé saako il faut mu oyof looloo ko arrangé ku nekk li la arrangé rek nga travaillé. nga jàpp ne lool lan lay def ci combat bi poids day neex combat bi waaw. combat bi lan ngay tàggatoo. waaye sant yàlla baax rek jul si yonent sant sama ñaari waajur sant sama sëñ Atem Mbacke yàlla na fi yàgg te wér sant njaboot sëñ gi yëpp di leen ziar baax di leen